jaajëf sama gars yi waa sport TV ñu ngi leen di jaajëfal di am mbégte di wax ngeen di di abonné ci chaîne bi gars yi ñu doole ko ak suñu gaynde yi nga xam ne ñi ki démb amal nañ seen ñaareelu tàggatu foofu ca France euh, ginnaaw bi nga xam ne ñu ngi waajal match bi war a dox suñu diggante ak Bolivie ci samedi bi ñu gis ni ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé bu amul chance ci samedi bi 23 Lions lay am ci match boobu diggante ak Bolivie ndax bu leen fàttalikoon liste bi nga xam ne woowoon nañ leen ñu ngi toll ci vingt neuf lions waaye vingt neuf lions yooyu dafa am trois yoo xam ne dañoo forfait duñu bokk ci match yi muy Edouard Mendy ak défenseur bi di Noah Fadiga ak ki nga xam ne moom mooy Keita Baldé ñoom ñett forfait nañu officiel na ñu gis yeneen ñetti joor yi nga xam ne ñoom jamono ji dañ leen a ber waaw muy Moussa Ndiakité Boulaye Dia ak ki nga xam ne mooy Ismaïla Sarr ñoom bokkagun ci entraînement yi ci groupe bi ba léegi léegi nag këri xibaar moo doon wax ni ki nga xam ne mooy danoo woon Habib Diallo ci pour mu remplacer Keita Baldé Keita Diaw Baldé mais Habib Diallo mujul ñëw ki nga xam ne moom mooy Aliou Cissé dafa mujjee décider léegi moom ak groupe bi nga xam ne moom laa ñu daat ci yam pour ci liste bu njëkk bi mais indiwaatul beneen renfort comme groupe bi amul renfort gars yi vingt neuf lion la woon trois yi forfait nan léegi vingt six ñoo fi nekk ci vingt six yooyu nag léegi trois yi pareegunu muy ñoo ñu leen doo xamal ni dañ leen a ber ngir ñu gën a mën a saytu seen gaañ gaanu ba mu gën a mën a wér mais tax seen bokk ci match bi ñuy amal ci samde bi fi mu ne nii jàpp nañu xam instant bi moom du jàppandoo loolu lañ gën a yaakaar ni duñ bokk ci match boobu group bi nag 23 lions yi ci des ñoom tàggatu nan ñoom ñëpp ñoom ñu ngi fa képp koo xam ne sa nga fa moom mi ci liste bu njëkk bi te bokkul ci far fay bokk na ci groupe boobu la ñoom ñëpp nga fa bu ko defee ginnaaw loolu dañuy wax ci ki nga xam ne moom Marcel Desailly moom nag ba tey day wax ci coupe du monde bi nga xam ne ñu ngi koy waajal ak équipe nationale Sénégal bi moom daal moom li mu gis mooy équipe nationale Sénégal bi moom séntu na ni dina war a mën a wane lu rey ci li nga xam ne moom mooy mondial bi moom daal nee na fii ci Afrique gis na ni équipe yi war nañ mën a wane dara foofu ca mondial ba rawatina Sénégal ndax Sénégal nee na équipe bi nga xam ne yor na ko ci jamono ji moom gis na ni war na mën a toj ci coupe du monde bi moom Marcel Desailly ancien Desailly euh, ancien défenseur bu France moom moo xam ne moom ñi nga xam ne moom nee na li nga xam ne ñoo ñëwee Sénégal ñu ngi yor équipe bi nga xam ne titulaire yëpp dañuy titulaire ci club yi gën a mag ci Europe moom nee na juróom-ñett jàpp ci ci ay joueurs ñi nga xam ne dañuy titulaire ak seeni club ci championnat yi gën a mag foofu te Europe voilà ñi ci équipe bu bi moom nag nee na bu ñuy xool première choix yi ñoom dañuy door ci équipe bu Sénégal bi ñëpp bu ñu xoolee ni ñoom ñëpp dañuy door tamit ci équipe yan nekk ca Europe foofu ca Europe moom daal nee na gis na ni li nga xam ne moom mooy équipe bi war na mën a wane lu rëy ci mondial bi ndax nee na Afrique yàgg na am ay équipe yu baax yu dem ci coupe du monde bi di wane seen bopp day xaw a kii ndax nee na jël na exemple bu mel ni équipe bu xam ne Ghana ci deux mille dix wala Tunisie quatre vingt ndax nee na Afrique daan na am ay équipe baax yu muy yóbbu ci mondial bi waaye booy xool ay ñetti joueurs nga ciy gis yoo xam ne ay joueurs de qualité ay joueurs yu ñu xam ñi ci des ay joueurs lañ yoo xam ne ci équipe bi ndaw lañ daan joge daan ñëw ci sélection yi Afrique mais nee na Sénégal équipe bi mu yor jamono ji ay joueurs yu mag lan yor te dañuy fubal ci ay club mag di départ seeni club moo tax mu ne moom mu ngi séntu ñun ñu daal di wane lu rëy ci mondial bi xam ne ñu ngi koy waajal.